leer na ku yàlla bind tontu lu ngeen dégg ma waxee ci yeggali waxtaan wala te introduction bi may def dina wane ne man tontu loowu kenn tontu kenn. Eh, ñu ko mu ne deretu yónnent bi la de di leen ñaan loo xam ne su ngeen ma ko mayee du ngeen ko rëccu moom du ko rëccu ñu ne ko lan la ñas gumba abdallah mu ne dama bëgg ngeen may ma mu bañ a moome dana moome ñaari fan ngeen moome ñaari fan waaye moome ci togg ak yekk ak taxani ak dem ca tool ya laa wax mu bañ mu bañ a am ndax deretu yonent bi la soxna yépp man ne ko may nañ ko ko mu ne ko yow it kaay ma wax la luy sa taxani wax la luy sa togg ak yekk wax la luy sa wax la luy jigéen ñi di def tey defoo ko lan lay wecc mu ne ko lan la mu ne ko bër bu set nga wàcceel ma kaamilu alquran mën nga ko mu ne ko mën naa ko mu ne ko mooy sa ay keroog la soxna si géej aye mosul aye waaye kulla yawmin Cerno Yaxya nee na mu wàccee faatiha baqara be naa si nee na bu jullee fajar la koy dal bu jullee gee indi xatmu bi ci maam xalifa ne ko jàngu ko maam xalifa génn àddina mu continué ko lii may wax nettali naa ko ci kanamu Sidi Lamine Niass fii ci kër alaaji tafsir gay alaaji tafsir Amadou Fall fii moo ànd ak maître ma soxna kan man duma fen man ñi may tudd ñëpp a ngi dund sii di Lamine rek moo dem dem leen ngeen laaj maître ma soxna kan xadara juma bu mel nii la woon foofu la doon amee maître ma soxna kan la Sidi Lamine ñas àndal keroog maa ngi kaset yi mu ngi fii ci sama kër. waay waay nit ñi nañu nettali lu rafet te bàyyi lu ñaaw am na kër yoo xam ne lu ñaaw amu fa lu ñuy sos moo fa am wala lu ñaaw amu fa ndax ñoom ñàkk nañu seen bopp wekk nañu seen bopp xam nañ seen bopp ba lu ñaaw duñ ko def duñ ko wax ku leen ko waxal nag danga ko sos te luñ sos nag kenn mënu ko bañ ndax yonent bi saaxirun majnun dégg na ko te huwa afdalil xalq lu ne dégg na ko innahu la majnun yàlla di ko layal wa ma saaxibukum bi majnun wala déet inna hada la la asatirul awwalin kuñ ko wax du moom inna shaaneeka huwal abtar kuñ ko wax ko dut moom dóor ko ba damm bëñam ah ñu ne suñ mag ñi ñun kenn du leen wax dara danañ leen wax ba dee waaye du jëriñ tus du tee ñu dem mag ñi dem nañ raw nañ ñun nag buñ moytuwut ñooy mboobit mi nga xam ne nag ñoo jëm safara ñun waaw ah, maa la ko wax ndax daañ ci waxe ba dugg jahannama daañ ci wax ba dugg jahannama man maa la ko ndax am na loo xam ne boo ko tegee ci deru maam Ablaye Niass dem safara am na loo xam ne boo ko tegee ci deru bàyyi xalifa Niass dem safara am na loo xam ne boo ko tegee ci ter deru ndeyam dem safara moo tax alaaji Ousmane Gueye mii bàyyi imam Moussa Gueye moo daan wax ne Cheikh Tidiane si ñu ne mu ne man de duma ko merle ñu ne lu tax mu ne ndax moo yilif meram Alaaji Usmaan Géey mi te Serigne Cheikh du jël kàddu mu lu dul ne ko góor gi waxal ba pare xam nga ne Serigne Cheikh ku muy wax loo xam nga la ngay wax bés mu ne ma Cheikh Tidiane booba conflit moo amoon ci kër gi mu ne Cheikh Tidiane man de du ma la merloo du ma la merle fu ma neex laay dugg ci kër gi mu ne ko lu tax mu ne ko dama yëg ne yaa yilif sa mer te nit bu yilifee meram nag bu ko merle bu cay génn nga des ci ma yëgal leen nit ne Tiwaawoon ñoo yilif seen mer ku leen di merle bu ñu cay génn nga des ci boobu man understand naa ko ay understand it boobu dama ko understand bu baax ay understand it ñoo yilif seen mer nit bu yilifee meram bu ko merle bu ca génnee yaa cay des te Tiwaawoon duñ mer de duñ mer ma wax leen ne Tiwaawoon duñ mer duñ mer de sëriñ Cheikh nee na danañ xuloo nag waaye duñ mer mu ne buñ meree fa ñuy dem ku fa dem sa mer faj te foofa duñ fa yóbbu mer mooy ca suñ borom waaw sëriñ Cheikh ne buñ buñ meree ki moom yëf yi la ñuy waxal te kooku ko wax ak moom mu def li nga bëgg mu ne kooku duñ ko wax mer mukk daa ñu soow nag ba nit ñi yaakaar ni dañ mer waaye meruñ de Ah, loolu Serigne Cheikh wax na ko ba tey ñëpp dégg ko kon uyele problème ngeen bëgg Chérif merle Tiwaawoon maa lànk da ngeen ko bëggoon dégg maa bañ merlewu ma kenn li rafet daal dinaa ko wax yéen it nekk leen ci góor ak jigéen mag ak ndaw nekk leen ci li rafet wax leen ko dox leen ko def leen ko bu leen kenn dugal ci ay safaan ndax xaju leen ci kër si Sy radiyallahu anhu daan na wax ne ñaari sébbu yuy tàkk yërëmuma sébbu ya poñet ma ca diggante balaa yërëm mu ne ndax sébb tàkk la baaxoo poñet lakk mooy mbaaxam mu ne kilifa yii nga xam ne ñoo nekk ci diggante bi ñu ne seen diggante dafa am ñagas-ñagas ñaari sébb lañ rek tàkk lañ baaxoo mu ne waaye taalibe yi nag ñooy poñet mi bu ñiixee rek ñooy lakk lii de Seydi Aboubacar a ko waxoon sëriñ kër si radiyallahu anhu moo ko waxoon kon dem dem njobba yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay lii rafet na ba mel ni bakkan ci kanam jekk na ba mel ni bët ci jë ah bët nekkul ci jë waaye jéew ko muur lii nga def nii tey yaakaaruma ko woon wallaahi xaw ma woon na dina fi ñëw billaahi wal kitaabi xaw ma woon na dina fi ñëw Cheikh Ibrahima bii géej na fi xaw ma woon ne dina fi ñëw dina fi ñëw toujours waaye géej na fi la tax mu ñëw tey ànd ak kii nga xam ne doretu Baye Niass la di doomu Cheikh Al Hadj Assane dem wax dëgg yàlla man sama xol sedd na mel na ni tey maam laay Niass moo fi ñëw te wallahi Thierno Yaxya li wax na ma ci sa jur loo xam ne su ma la ko waxoon léegi nga summi garambu bu beeg yépp jox ma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 su ma sañoon ñépp yàlla dugal leen ajjana man mu yóbbu ma jahannama te yàlla wa kafa billahi shahidan yàlla seede na li may wax su ma sañoon ñépp ami milliard man du ma yor un franc su ma sañoon ñépp dëkk ci pale man may fanaan ci mbedd mi lu may wàññi daf may tee nekk nit beneen bi bu fa laa waroon jeexale waaye fi lay tàmbale ormal naa ñépp ba ñëpp xam ko bëgg naa sëriñ sëpp ba ñëpp xam ko waaye yi Seydul Xaaji Malik su ma sañoon xam ngeen nekk nit neex na nekk nit wala xad karam naa bani aadama tax du yàllaa ko wax yàlla ne li ma bind yépp nit laa ci gën a teral ci biir nit jullit a ci gën ci biir jullit bokk ci xeetu yonent bi moo ko gën bokk ci xeetu yonent bi di égoïste nag waaye nekk tiijaan na ca dàq ah ñeent yépp baale naa ko ndax lenn bu yàlla doon bind nit di ko tàggu dama naan ko jéggal naa la nekk nit jéggal naa la nekk jullit jéggal naa la bokk ci xeetu yonent bi jéggal naa la nekk taalibe tiijaan bu ma yàlla laajee loo bëgg ma ne ko def ma as mbant boo xam ne dinga nga xiir Seydul Xaaji Malik mu di ma soccoo billaahi wal kitaabi dama ko naan rek def ma benn bant bu tuuti boo xam ne dinga xiir Seydul Xaaji Malik mu jël ma rek soccoo ma benn yoon bu ko neexee sax mu sànni waaye nay benn yoon rek mu soccoo ma ci gémmiñam googu rek sànni loolu doy na ma sëkk soxlaatuma leneen lu waay soxla na jël lu waay bëgg na jël man lii rek laa bëggoon su ma yàlla defee nit nag fas naa yéene nekk jaamu Maodo ba ba may dee ci biir jaamu Maodo gi nag lu Maodo bëgg danaa ca ne te Maodo dara gën a lu ko woon lu dul ràbbaske mbokk gi walla déet man jaamub Seydul xaj Maalik laa bu ma kenn def taalibe taalibe dafa diis te wóorut waaye li ma wóor daal maa ngi doon ñaan yàlla nekk bant boo xam ne Maodo dana ma jël rek soccoo ma bu dee benn yoon la ma jaarale ci gémmiñam sax sànni doy na looloo ma gën loon nekk nit nekk nit ni mu métti xoola taxaw fii di wax lu ko gën metti am na ah boo nekkoon bu ma nee woon bant lii yëpp dana ma dal bër bu set ma wax leen ko man sama baay boo ko gisoon na dem mi sama papa ko sut billaahi wal kitaab bi man sama ndey boo ko gis xam ngeen séeréer bu tuuti rek amoon kii xam na yaa faatu juuf demal kaw la man sama ndey moo ma sut foofu gën maa ponkal ñuul kukk sama baay moo ma ëpp foofu sut ma ponkal xees pecc ah? waaw kon sama wowaay bii fu ma ko jële wax rek dama waxa waxa waxa wax ba wow wax guddi wax bëccëg wax suba wax ngoon wax naa ba wow man boo ma pesé matuma cinq kilos du caaxaan li ma leen di wax nii du caaxaan 80 86 ba léegi même kilo lay pesé wallaay li ma leen di wax du ay reede 86 ba léegi même kilo lay pesé te buñ ma ëffaloon tuuti rek léegi ma dékk Modou Lo yàlla xam na ko waaye nag jar na ko lii rek car na dem lii rek ku ko mën a defal sa bopp kenn mënu ko sa alal la yaa ko moom fii boo fi ñëwee fekk ma fi sa àllal la boo fi ñëwee fekkoo ma fi sa alal la yéen la ma leen waxoon nekk leen ci ku fi ñëw ngeen xàmmee kanamam ngeen bañ ko xàmmee gis muy kilifa jiital leen ko zawiya bi am na imaam de mu ngi nii toog imaam Yuusu Géey Jamil bu Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil kii xaafisul quran la dina yëkkati léegi incha allah moo fi doon jiite tarawih yépp min baqara ila naasi mu imaam Alioune Diop ana sa rakk ji ñoo bokk woon war na ma de dina ñëw ñëwul ah, waaw kañ Omar ah, man booy man na nga def très waaye ma di ko jiblu ndax bi ñuy wàcce nag dama ne ko ah duñ bokk fu ñuy jaar maa ngi woote <laughs> waaye rëccu naa ko du may koon yóbbaale la parce que am naa possibilité yóbbaale la wax naa ko it xale yi ma ne leen ah def naa bu ma ko gisee dinaa ko baalu parce que waroon naa la yóbbaale waaw ah, man bu gars yi di wàcc alxuraan ku wéddi àllaaxira ne ko ànd ak mag ñii di doo doo jaar portugais ci béy da nga dox man kañ avion bi mën nañ ko bokk waaye bu may wàcc ci bunti avion bi lañ may jël ci fa may jaar ak gars du bokk danaa génn ba balaxal ma ñoom ñuy door a rang ngeen ne yooyu amu fa VIP am na fa VIP Alaaji Malick VIP Maam Abdoulaye ñas VIP Cheikh al Islam yooyu yëpp dinaa ci ñëw mooy mujjantali waxtaan wi lu tax ñu ne Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi barzaxul baraziq foofu lu tax ñu ne Cheikhuna Tidiane huwa xutbul maktum barzaxul maktum barzaxul baraziq illa la <coughs> cheikh dafa am barzax boppam boo xam ne bokk koo kenn moom ak taalibeem yi rek maam Ablaye Niass am barzaxam boo xam ne bokk ko kenn moom ak i taalibeem yooyee nag boo bëggee maam Ablaye Niass bëgg Baye Niass bëgg bàyyi Khalifa Niass xam nga lu lay dal li jab Abdou Aziz li ko daloon bi mu génnee àddina maam Ousmane nettali na ko ngeen dégg mu ne ko ba ma génnee àddina benn ba léegi maa ngi ci loxo ñu di ma ganale yeggaguma ci loxol Serigne Babacar Sy ñu ngi may ganale rek soo bëggee bàyyi bàyyi dalay woo ci barzakam ganale la ba pare doon laa paas bàyyi xalifa maam xalifa ganale la ba noppi doon laa paas bàyyam maam Abdoulaye mu ganale la ba noppi ne laa ah, sëñ Assane dema nga ne la di ak barzakam te yi bokkuñ de nga dem ca sëñ xasan mu mu mu berndeel la ba noppi ne laa ah, amoon naa muqaddam bu ñuy wax sëñ Aline demal demal barzaq ma ganale nga dem mu ganale la noonu lañ lay ganale ngay wër ñu di la ganale ba ba ngay jot ci sa kilifa boo jotee ci sa kilifa nag nekk ci barzaqam mu door la paas barzaqul baraziq taajil aarifina mu middil awliyaa yi waarisi sirri seydina muhammad abil abbas Cheikh Seydi Ahmed Tidiane nit ñi xamuñ lu xew nañ yéene wante jàmm rek te kenn ku ne yéene sa moroom yiw madame sàmba ñu ngi lay nuyu bu baax moom mooy directrice des ressources humaines bu poste Coliposto tey fi la xadara juma mooy baax rakkam aas saa see ci malaan mi rek da ngay toog ci suuf boo amul benn ngant kañ ci suuf ngay toog li ñëpp di wax ngay wax nañ koy waxee nga koy waxee jeex na looloo tax tarixa bi ne moom xut bu beeg euh, wali yu baag kii door a jël ak ñépp bokk lu ñuy wax salaatul faatixi la laa ilaha illallah la la jeex na ñépp bokk lu ñuy wax kon nag fa tabarakallahu dem njoba daal bég naa bépp bég ci yàlla seede na raayatal farxi moom laa am tey di ko seedaloo ñëpp nag di leen ko seddaloo yéen ñëpp kii toog Mouhamad Mbaye la tudd ñi gën a jege tey Serigne mbay Mansour xalif général ci la bopp altine balaa moo balaa sëñ Mbaye di dem Paris gisante naa ak moom moom mi toog nii bu fi sëñ mbay nekkee amul bés bu mu ko dul gis ñu ko gën a jege ci la bokk Cees lay jóge di ñëw fii mu ngi nii Cees la jógee mook Serigne Thierno jóg bii fa tabaarakallaahu mu ngi nii toog ku baax la mag ñépp ci réew mi dem leen ngeen laaj leen mag mu ci nekk sukk naa ci sa kanam sa baay nga baal ma ci waxin bi sëñ Hassan dem laajal Abdoulaye mbay sukk naa ci kanamam bétaay góor gi ñaanal ma soxlawuma ci moom turu yàlla ndax nit dana yegg ci yàlla foo xam ne boo ñàkkee fayda benaan ko jox ma turu yàlla torox nga moom mooy yàlla bu la xoolee rek sa affaire baax bu xolam seddee sa affaire baax dafa soxlaati ngay nekk toog di sikkar période sikkar ni mettee nga dajeeg nitu yàlla mu ñaanal laa ko ko foofu sa affaire di baax di baax ba yow bal xiyam nga toog fii naan ko jox ma dog toog dog ba sa tànk yi di nagam ngay kitim kitimeeg lu nekk ban njëriñ la am ban njëriñ la am nitu yàlla da ngay profitoo ci moom sukk naa ci sa kanam kanamu jur ba tey maam buubu jaw kazalika ca kaw la xam nga ko muxaddamu seydul xaaji maalik sëriñ Moustapha Ndong bii ma doon wax ca altu gañi alaaji ahmad dem te sookoon foofu moom fa laa jànge cheikh al islam alaaji ibrahim ñas bàyyi ñoo bokk même turandoo maag moom ki ko tuddee lañ ma tuddee su mosaan ñëw sookoon dem ngomeen xam ngeen ngomeen ca sookoon taalibeem yu baari foofu fa lañ dëkkoon ba léegi gàmm ga mu ngi am sookoon bu bii paase nii moo gàmmu ndemeen bi ñoo tombee woon bi ma fay def bu Abdou Aziz dem bi ma koy defal ñoo tombe ma ne leen bu mu tombeeti ñoom sax dañ jógee ca gàmm ga ñëw ci sama bos toog ba mu jeex ne ma bu déwénee reer yi ñoo koy togg waaw lii lu lu rafet lii dinaa ko yàq ndax benn Ahmed Khalifa Niass maa bañ te booba yàgg na daa avril passé la mille dix 2017 2018 kon jàppaat naa ko avril bii di ñëw mille 2019 le 11 avril 2019 laa ko jàppaat waa Ngomeen ñoo ne ñooy def reer ba te mille 2020 déedéet 2019 waaw 2000 le 11 avril 2020. waaw ah, kay ah te ñoom ñoo ne ñooy defareer ba te ba ma koy jàpp yi yëpp xewut dëgg la wala du dëgg cheikh al bu mosaan jógee kaw la ñëw ngomeen waxtaan ak ñoom ba noppi day dem kër El Hadj Ahmad dem waxtaan ak moom bu fa jógee sama kër maam Cheikhu Diouf lay ñëw man Cheikhu Ibrahima Diouf ak Baye Niass ñoo bokk ku ñu tuddee maam Thierno Ibrahima Diallo ca Lamine fa maam Abdoulaye Niass nekkoon bi mu nekkee exil Gambie Cheikh al Islam gane àddina mil 1900 mu tuddee ko ko Cerno Ibrahima Dem boobu ak Cerno euh, abdu Karim euh, manaan dem sax baal leen ma Ibrahima Diallo ak Cerno Abdou Karim Diallo bi njëkk a jox Cheikh Al Hadj Omar salaatul faati yi ñoo bokk benn baay. man sama turandoo ngand la moo tax bàyyi di ngand dégg ngeen wax mi waaw kañ moom lañ tuddee sama maam Cheikhou Diouf ñu ngi ko ko tuddee mille 1888 sama maam mille 1888 la gane àddina ñu tuddee ko góor googu Cheikhou Ibrahima juuf Ibrahima Diallo man ma gane àddina sama bàyyee ma nettali ak sama ndey fekkeewu ma ko xam nga ku gane àddina <laughs> say nopp mënoo ko fekkee sama papa nee na alaaji Amadou Ba bu Sokone ne dañ ma koy tuddee Thierno Misba Misba Diallo ne dañ ma koy tuddee ku ne ne man la koy tuddee sama papa ne yéen ñëpp bàyyi leen ma tuddee ko seen maam mi leen meññ muy Thierno Ibrahima jàll kon man fédérateur la ndax ci fédération laa juddu ku war a fédéré laa man waaye waruma taqale fii wax na bàyyi bu mosaan jógee nag ndemeen sama maam Cheikh Ibrahima Diouf lay mujjee toog waxtaan ak moom boo demee suñ kër ba tey station pomp baa nga fa station la woon ñun sama maam moo jëndoon savanel dafa am savanel ko Nosoko Molerprom ñun sama maam moo jëndoon savanel ba léegi pompe yaa nga fa man pompe naa essence nii ba tey di jaay essence fa la bàyyi daan ñëw bu waxtaanee moom ba noppi sama maam dajale njaboot gi jim bàyyi ñaan na ci sama bopp bi ba tey beneen bi ci des ma ne leen wax naa leen fii ne leen sama caatu ndey muy aadama Sarr déglu leen bu baax Aline saar bii ci làmb ji baayam ak soxna Astu Sarr bu yaayu Cheikh al Islam yaayu Alaaji Abdullahi ñoo bokk benn baay xam ngeen loolu waaw ah. ak góor gi Alioune Sarr bi ko tuddee ngeen baal ma dinaa ko tudd nag góor gi Alioune Sarr moo jur Abdou Hamid saar Alioune saar boobu lañ tuddee alin saar bii ci làmb ji ak Fara Sarr Ousmane anamu Ousmane Senghor bi seen jarbaat la ndax seen ndey ndeyam ak ñoom ñoo bokk benn baay. Ousmane borom étage bii ngay gis nii mu may dégg Ousmane Ousmane Senghor bii Fara Sarr nijaayam la docteur alin Sarr nijaayam la docteur Alioune Sarr nag ak soxna Astu ñoo bokk benn baay Koli Sarr moo leen jur Koli Sarr boobu moo jur Njaak saar jur Ngóor Sarr jur sàmba Suba saar greffier en chef bi ne woon Kaolack xam ngeen ko tribunal bu Kaolack Samba Suba Sarr soxnaam aadama Sarr lañ tuddee sama rakk boobu ndey moo tax ñu naan ko ndey Samba Suba Sarr Jéen Sarr Ngóor saar bi doon denc sama yaay bi am ci ndey ak soxna Astu ñoo bokk benn bàyyi Koli Sarr moo leen jur ca Jiloor ziar bañ ko fa doon defal man ak kii ka dem leen ngeen laaj ko Moustapha Ka la tudd de bi ne woon parcelle taalibe bàyyi du ma ah Cheikh Ka du ma nga parcelle ba tey dem leen ngeen laaj ko kaamil bañ fa njëkk a jàng man Makhtar sëñ Makhtar Abdou Hamid Sarr yàlla na ko yàlla yërëm ak eh, fat eh, kii saaxo góor gi Fata Saaxo bu kër soose ñoo jàng kaamil ba ñun ñeent dëkk ba amuloon kaamil dañ ñëw ba ci dëkk ba ñu ni laajte kaamil ñu ne amut kaamil ñu dem ca jàkka ja fekk fa summeeku jaan laaj ko ñu ne kon dëkk bi jàkka ji kenn du fi julli ñu bale jàkka ji ba mu set toog ci jàkka ji yónnee jiloor kaamil ñu indi kaamil bi ñu tas ko jàng ko ñu ñeente jàng kaamil bi keroog góor gi Fata Saaxo rek a ci génn àddina Fata Saaxo boobu kër soose la dëkkoon moo may soxna xalifa si Baay Mbàkke boo demee nga laaj ko ca tiwaawal maa ñaani woon jabar ja ami saaxo maa ko ñaani woon man duma fen nañ ma dimbale man Sidi Makhtar Kounta sëñ Souleymane Seck ñoo defoon délégation ñaani ko ci kër Socé ndax leer na demal nga laaj xalifa si Baye Mbàkke mu ngay dund soxna Ami Sakho kay xanaa doomam yi léegi war nañoo ne euh, kama am na ci ku ma taseel France mu ne ma papa ma ne ko kuy saay mu ne ma <laughs> soxna Ami Sakho ma ne ko maa ko ñaani woon ma ne yow kañ wax nga dëgg boo nee bàyyi ponkal la njool yegg ca kaw xàmmee wu ma ko moo ma xàmmee nag nem papa fekk dañ xadara jumaa nii ba pare rek mu ñëw nuyum pap ma ne ko sant bi mu ne ma si ma ne ko yaay sama sëriñ kuy sa papa mu ne ma xalifa si bay Mbacke ma ne ko sama xarit kuy sa yaay mu ne maami saaxo ma ne ko yaayee yow ma ñaani woon sa yaay ca kër soose keroog ñoo jàng kaamil ba ñun ñeent fii lañ defee ñaari kaari sotorak yal na ko yàlla yërëm bunti kër ma Madun Caam boobu farasaar mu ngi dund moo dëkkoon ci kaw léegi dafa toxu këram ak Daawuda Bopp moo ne woon urbanisme ba léegi mu ngi dund mu ngi liberté 6 boori kër Seydi Jamil sëñ bi li may wax xam naa ko de dama bëgg nag nit ñi xam ne man làmbatuwuma li may wax pelemtuwuma li may wax foroma ko ci mbedd ay mag ñu yàlla baaxal ñoo ma wax may wax fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur la Seydi Aji waxoon ca rufaat fa man shaa fal yumin wa man shaa ankara dëgg la wala du dëgg lii moo xew dara xewut jàmm rek a xew jàmm rek a xew dara xewut ñun ñëpp koonoo ixwaana nañ nekk ay mbokk nekk ay jàmm nekk ci jàmm dëkk ci salaam billaahi bu ngeen xamoon li jàmm jar di ngi ku ne dina jaay bakkanam jëndee ko jàmm meer mbooj jàmm na ko ñépp di wootal Serigne Cheikh nee na jàmm dañ koy wootal de nag dañ xamagul ay moo tax fu ñu toll di bëgg ay yàlla nañ ci yàlla musal waaye billaahi ni ma xamee sénégalais ni mu ragalee sénégalais du naar de naar moom jëndee bakkanam ak dee du dara sénégalais nag bu ñaar dee rek nga inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moom kay sénégalais ñeme wut moo tax doo leen digg ci dara xam nga luñ ñeme ceebu jën ceebu jën moom ñeme nañ ko ak naan ataaye midi waaw koo xam ne ñeme nga ceebu gën ak ñaan ataaye midi fal yaqul del wax yiw aw li yes mut ah wala nga noppi kër diine ji nit a ciy wax ba yàqoo ci waaye kenn mënu ko yàq ndax set na sell na baax na ba pare yàqoo ci nag mën na am kenn ku nekk na gëmal ne man de ña yàqoo duma ci bokk te wolof nee na du man kenn bokkuma caa ku gën ah du man kenn bokkuma cee ku gën kon yéen ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm oustaz Abdoul Aziz Thiam Sidi Ahmed Thiam na Yaxya Yaxya